ñuy nekkoon ci téere bu barkeel bi ñu tuddee kitaabu rimaaxu xisbi rahim ala nuxuri xisbi rajim li sayidina cheikhina alxaaji omar ibni saidin alfuuti nekkoon ci chapitre quarante et un bi di ci jàngale charxu maana alfaadil wirdi mu toll woon boobu ba tey ci al ibris ci xutbu bu mag boobu nga xam ne Cheikh Tijaan yi defal na ko tëskiya ci wax ne lépp lu mu wax rek wér na ndax bokkul woon ci ñi borom borom xam-xamu téere yi kon lépp lu muy wax rek ci fatxu la ko waxee ak kashfu mu ne suma zakara lana sëriñ bi nag bi mu waxee laaj boobu ñu ko laajoon ne Jibril mook ko yonent bi ku raw ak yu mel noonu mu wane ne Jibril benn xaaj la rek ci yonent bi kon du rafet sax nga koy nirale summa dakara lana radiyallahu anhu inna suwara almalaikati taxlacu hadihi addaat wa tadhashu minha li kawnihi ala suratin la tucrafu maa kasrati maa kasri al aydi wal arjul wal ruus wal wujuh kawnuha ala siati azamati ala siatin azimatin ba xaytu tamla'u ma bayna alxaafiqayni nee nañ mu ne Jibril Euh, benn jëmmale ci jëmmu yonent yàlla muhammad yooyu sallallahu alayhi wa sallam te sax am na ci melokaanu malaaka yi malaaka yoo xam ne rakloo nañu àgg ci bari ay loxo ak tànk ak laaf aki bopp aki kanam ba malaaka yi eux ñoom dañ leen mujj ragal ginnaaw malaaka yi ci boppam ñoom ñooy gis ay feeñuwaay ci seen biir yoo xam ne duñ leen ñeme ba mu jeex massa yonent bi nga xam moom lañ bindee ci leeram malaaka yooyu qaala radiallahu anhu wala yaalamu dalika illa man fataxa allahu alayhi fa kaana sayidina jibril alayhi salaam uh, wanisatun liddaati turaabiyati lilsharifa wa amthaalu hadihi suwar hadihi al umuur amma ruuxu sharif radiallahu anhu sallallahu alayhi fa innaha la tahaabu shay'an min alsuwar wala min gayriha li annaha aarifatun biljamic qaala fa qultu walima kaanat ruuxu sharifa laa tukfa fi lwanisati fa qaala li anna zaat laa tushaahiduha munfasilatan anha walwaxdaaniyatu lillahi xadduhu laa tutiqu ddawaam alayha illa li zaatihi wa man adaahu shafaa bi xubbi shafci wa yumilu kon Jibril lay wax ne rek bi ko yàllay bind mu ngi ko bindee woon ngir yonent bi sallallahu alayhi ak mu di ko wéttali fii ci àdduna mu mel ni danga ko laaj ne ko waaw lan moo tax moom mënta wéttaliku boroomam directement ci jëmmam mu ne xanaa xamoo ne am na ci malaaka yi malaaka yoo xam ne ni lu ñu am ci bopp am ko ci ay kanam am ko ci ay tànk ki laaf bu ko nit kese gisoon rek day dof waaye nag ku dof fekk dafa gis lu xajul ci bopp bi kon yàlla faw mu bind Jibril ci melokaan bu rafet gis nga bu daan ñëw du yor sax jëmmu boppam jëmmu dexyatul kal bi la daan indi muy ku rafetoon yonent bi sopp ko mu ñëw bu ko mu mën a am ci moom ak euh, wettalikunte amma nag ruuxam moom yonent bi jibril amul foofu accès parce que musta tàggoog yàlla kon soxlawul jibril ñëw naan day wettali ruuxam moo tax léeg-léeg jibril daan na indi code yoo xam ne ruux bi moo koy xam day yëngal bopp bi rek ne ko ariftu jibril xam ne yonent bi am na relation ak boroom feneen fu dul fii gannaaw ci malaaka yi def ci am malaaka yu raklu yoo xam ne malaaka yi ni ñoom xaw ñu leen ñeme ba mu jeex kon nan ngay def nit bari na ku jommi ñu ne dafa jommi fekk ne jëmm ya mu gis donte jëmmi teraanga la waaye ñoo dul xaj ci bopp bi kon loolu moo doon mission wu Seydina Jibril waaye amma di wax ne moo raw yonent bi loolu moom xel xalaatu ko loolu la sëriñ bi doon tënk ci lii mu wax ni kon jibril wéttal la woon rek ci jëmmam ak di ko indil message yu yàlla waaye yonent bi fekk na xame na ko noo xam ne sax moom jibril xamew ko noonu wa qaala ba tey sayidi abdul aziz mooy wax radiallahu anhu wa sayidina jibril innama kaana walisu fi ma tutiquhu wa yacrifuhu bima huwa taxta sidratil muntaha bu ñuy wax nag ne jibril ñu doon wéttali yonent bi ak di ko ay xeetu xam-xam yooyu buñ koy wax mooy xam-xam yi nga xam ne au delà de sidratul muntaha wala au dessus de sidratul muntaha wàcc ci suuf yooyu la jibril mana a wéttalee yonent bi wax dañu wax ne li jóge ci li fi gën a suufe ci fi suufe mu ngi mooy taxta sara juróom-ñaareelu suuf la nekk ci suufam fi gëna a kawe ci li kawe mu ngi yem sidratul muntaha sidratul muntaha ba taxta sara fa mbindeef yu mbindeef yi nekk bu xosee passé nag sidratul muntaha jëm kaw foofu ci intimité yàlla ngay dugg léegi nag jibril pour mu wéttali yonent bi lépp loo xam ne daal mu ngi dale sidratul muntaha au dessus ba taxta sara moom loolu la mën a xam ba mën cee wéttali yonent bi waaye la weesu foofu nag parce que yàlla jibril xamu ko bay am kum ciy wéttali te loolu itam xame ko noonu dana am solo moo tax mu ne wa amma maahu ma fawqa dalik bu rombee nag si sidratul muntaha gis nga bi bi muy rañ rañaani ji gis nga jëlee naka makk ba fan ba sidratul muntaha waaye nag foofu la ko bàyyi dem rejoindre place am yonent bi nag ndax fii nga may bàyyee mu ne wa ma minna amuñu amul ci ñun kenn illaa lahu maqaamun maalum loolu nit ku nekk daal maanaam jëmma ju ne am nga sa darajay bopp jooy yem koo gis rek am na fu mu yem foo xam ne mënu ko dépassé xam naa malaaka yi nangu nañ ko waaye nit ñi ñoom nanguñu ko nit ñi ngay gis ku tàmbali loo xam ne yow di nga xam ne yow xamu ci dara moom ci boppam dina xam ne manu ci dara mais du tax mu bàyyi ceetaan mayta tax mu sonn sonal ñëpp dugg ci loo xam ne ñëppay sonn moom mu sonn mënu ci dem mais du ko bàyyi mais Jibril loolu la ko wax dafa ne yàlla képp ku mu bind ni nga amee date de naissance noonu nga amee foo mën a yem léegi nag boo rombee sidratul muntaha dañuy dem ci li ñuy tuddee alxujubu sab'in mooy soixante dix rideau yi nga xam ne dafa tala tala tal ba kenn xamul nu mu toll ci épaisseur muy rideau yi nga xam ne ñoo dox diggante yàlla ak jaamam yi waaye ñoo dox diggante arash ak jaam yi pourtant foofu yàlla dafa équipé ay malaaka te foofu ci intimité wu yàlla la bokk ñu malaaka yooyu fa ne fa juddoo leer gañ leen bindee moo tolloog leer ga ñu bindee rido yi jibril bu bëggee jege malaaka yooyu day sey de même que gannaaw sidratul muntaha gannaaw soixante-dix xijaab yooyu laa yutiqu mushahadata ma fawqa sidratil muntaha li quwati al anwar hada dahaba sallallahu alayhi fi qat'i al hujub wahdahu moo tax yonent bi keroog ci moom rek moo demal boppam pour dog euh, soixante-dix xijaab yooyu am ñu ñuy wax sax ne soixante-dix mille xijaab waaye jibril demul woon ndax bu demoon dafay lakk ni jële karaw def ko ci Euh, safara buy jër jëri moo tax jibril ne ko yow yàlla dëgëral na la ba nga àttan ko mën a dem waaye man mënumaa romb fii mu ne wa kayfiyatu talaqi nabi sallallahu alayhi wa hal yatalaqaahu bi wasitati jibril kama huwa zahirun kathirun min ada am la fa euh, fa inni fihi kalaamu la tutiqul uqul wala yanbaghi kutubu wallahu alam waaw léegi rido yooyu mu passé ba dem xadratul borom ba dem arsh ndax xam-xam yam fa jël jibril moo ko jox foofu hmm? jibril bàyyi nañ ko fële ci bunt ba yàgg na kon nga xam ne kon yonent bi détenir na savoir yoo xam ne ni jibril xamu ko yàlla moo xam mu ne wa fiihi inna allaha taala lama araada ixraaja barakati al wa asraariha masala fiha min al uyuni wal abaari wal anhaari wal ashjaari الثمار والأزهار arsala sabina alf malakin ila sabina alf malak malakin ila sabina alf malakin thalath sabiniyat min al ulufi fa yanzuluuna yatuufuuna fi l ardi wa sabcuuna al ula yadkuruuna isma annabi sallallahu alayhi wa sallam wa muraaduna bil ismi al aali wa sabcuuna athani yadkuruuna qurbahu min rabbihi sallallahu alayhi wa sallam wa manzilatahu minhu wa السبعون الثالثة تصلي عليه ونوره صلى الله عليه وسلم مع الطواف مع الطوائف الثلاث فتكونت الكائنات ببركة ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وحضوره بينها ومشاهدتها ومشاهدتها قربه صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل وقد ذكروه وذكروه على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت wa ala mafasili zaati zaati ibni aadam fa laanat bi idnillah wa ala mawaadii aynayhi fa futixat bil anwaari allati hiya fiiha fa hada maana qawluhu sallallahu alayhi wa sallam insaqat minhu al asraar al asraar fa qultu fa hada maana qul qawlu saaxibi dalaa'ili al xayraati wa bismi alladi wadactahu ala al layli fa adlam wa ala an nahaari fa stanaar wa ala alsamawati fa staqbalat wa ala al ardi fa stakarat wa ala aljibaali fa rasat wa ala albihaari fa jarat wa ala aluyuuni fa nabaat wa ala alsaxaabi fa amtarat wa qaala radiyallahu anhu naam dalika alismu huwa ismu sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bibarakatihi takawwanat alkaa'inaat wallahu a'lam wa fiihi anna sayidina ahmad ibnu gaws ibnu abdullahi gaws qaala li muridi yaa waladi lawlaa nuuru muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maa zahara sirrun min asraari al ardi falawlaa huwa maa tafajjarat aynun min al uyuun wala jara nahrun min al anhaar wa inna nuurahu sallallahu alayhi wa sallam yaa waladi yafuuxu fi shahri maaris thalaathu maraatin ala saa'iri al xubuubi fa yaqacu laha al asmaaru bi barakatihi sallallahu alayhi wa sallam walawlaa nuuruhu maa asmarat ويا ولدي إن أقل الناس إيمانا من يرى إيمانه على ذاته مثل الجبل وأعظم منه فأحرى غيره وإن الذات تكل أحيانا عن حمل, عن حمل الإيمان وتريد فتريد أن ترميه فتفوح نور النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معينا لها على حمل الإيمان فتستحليه وتستطيب وفيه lawlaa huwa sallallahu alayhi wa sallam ma zahara tafawutu nnaasi min aljannati fi ljannati wannaari wala kaanu kulluhum ala martabatin waxidatin fiha wa dalika annahu taala lama xalaqa nuurahu sallallahu alayhi wa sallam wa sabaqa fi saabiqi cilmihi tafawata annaas fi qabulihi walmaylu canhu zahara dalika calayhim xaysu xalaqa dalika annuur fa culima hunaka anna minhum man balaga min alxushuuci darajatan darajata kada wa min al maarifati darajata kada wa min al xawfi darajata kada wa inna fulanan shariba min dalika nuur kada lawna kada min nawci kada wa fulanan shariba minhu nawca kada qabla zuhurihim wa hum fi adami fi adami al adam qaala radiyallahu anhu wa tafaawatu al maratibi wa tabaayunuha huwa macna inshiqaaqu al asraar minhu sallallahu alayhi wa sallam wa amma ginaahu sallallahu alayhi wa sallam an jamii alxalqi jumlatan wa tafsilan fa zaahirun mimma taqaddama zuhuran laa gubaara fiihi walaakinni aziidu fi idaahihi fa aqulu qaala shaykhunaa radiyallahu anhu kamaa fi ljawaahiri almacaani i'lam annahu sallallahu alayhi wa sallam ganiyyun an jamii alxalqi jumlatan wa tafsilan fardan fardan wa an salaatihim alayhi wa an ihdaa'ihim thawaaba al acmaali lahu sallallahu alayhi wa sallam bi rabbihi awwalan wa bimaa manaxahu min subuuxi fadlihi wa kamaali wa kamaali tuulihi fa huwa inda dalika inda fi dalika inda rabbihi sallallahu alayhi wa sallam fi gaayatin laa yumkinu wusuulu gayrihi ilayhi wala yutlabu minhu gayruhu ziyaadatan aw ifaadatan yashhadu li dalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wala sawfa yuctika rabbuka fatarda wa hada alcataa wa in warada min alxaqi bi hadihi sifati sahlatu almaxad qaribatu almaxtid maxtid fa inna laha gaayatun laa tudriku alcuqul laa tudriku alcuqul asgaruha fadlan an algaayati allati hiya akbaruha fa inna alxaqa subhanahu wa taala yuti min fadlihi ala qadri saatihi bi rububiyatihi wa yufidu ala martabatihi sallallahu alayhi wa sallam ala qadri xuduudihi wa makaanatihi cindahu fama dannuka bi ataain yuridu yuridu man yuradu min martabatin yaridu min martabatin laa gaayata laha wa azamatu dalika al ata ala qadri tilka al martaba wa yariju ala martabatin la nihayata laha aydan wa azamatuhu aydan ala saati qadri saatiha aydan fa kayfa yaqdiru hada al ata wa kayfa taxmilu al uqul siatahu wa lidalika qaala subhanahu wa taala wa kaana fadlu llahi alayka azima wa aqallu maratibihi fi ginaahu sallallahu alayhi wa sallam annahu min ladun bi'satihi ila qiyaami saacati kullu caamilin yacmalu lillahi mimman mimman daxala fi tawqi risalatihi yakunu lahu maa sawaabi amalihi baaligan maa balaga laysa yaxtaaju maa hadihi almartabati ziyaadatu ihdaa'in sawaabi lima fiiha min algina alladi laa xadda lahu wa hada asgaru maratibi ginaahu bima waraau dalik min alfaydi faydi alakbar walfadli alcazim alaqtar alladi laa tutiixu xamluhu alcuqulu alaqtaab فضلا عمن دونهم فإذا عرفت هذا فاعلم أنه ليس له حاجة إلى صلاة المصلين ولا شرعت لهم ليحصل لهم النفع بها وليست لهم حاجة إلى إهداء الثواب ممن يهدي ثواب الأعمال وما مثل المهدي له في هذا الباب ثواب العمل متوجها أنه يريد يزيده به صلى الله عليه وسلم أو يحصل له نفسا نفعا إلا كمن رمى نقطة nuqtata qalamin fi baxrin tuuluhu masiratu miati aam wa arduhu kadalik wa umquhu kadalika mutawahiman annahu yumiddu hada albaxr tilka alnuqtati wa yazidu wa yaziduhu fa ayu xaajatin li hada albaxri bi hada alnuqtati wa ma hiya illa an tazidu minhu fa ida carifta rutbata ginaahu sallallahu alayhi wa sallam wa xudwatahu cinda rabbi faclam anna allaha amara alcibaada bilsalaati calayhi liyucarrifahum culuwa miqdaarihi cindahu wa tafawuqi martabatihi ladayhi wa ulwi istifaa'i ala jamii xalqihi li yaxtaarahum laa yaqbalu allahu taala lahum li laa yaqbal al amal min min aamilin illa bitawassuli ilayhi sallallahu alayhi wa sallam faman talaba alqurba min allahi wa tawajjuha ilayhi duna tawassuli bihi fi sallallahu alayhi wa sallam mu'ridan an karimi janaabihi wa mudbiran an tashriici xitaabihi kaana mustawjiban min allahi gaayata suxti wal gadab wa gaayat allaani waltard walbu'd wa dalla sacyuhu wa xasira amaluhu wala wasilata ila allahi illa bihi sallallahu alayhi wa sallam kasalaati alayhi fiiha tacrifun lana biculwi miqdaarihi cinda rabbihi wa fiihi taclimun lana bittawassuli bihi sallallahu alayhi wa sallam fi jamiici tawajjuhaati walmataalibi laa gayru laa gayra haadihi mimman tawahhama annafcu lahu sallallahu alayhi wa sallam lima dakarnaahu saabiqan min ghinal kamaal wa amma ihdaau alsawaabi lahu sallallahu alayhi wa sallam fa taaqal maa dakarnaahu min alghina awalan summa taaqal misaalan axar yudribu li ihdaai alsawaabi lahu sallallahu alayhi wa sallam bi malikin azimi almamlakati daxma alsultanate qad uutiya fi mamlakati min kulli mutamawilin xasaa'ina laa la laa xadda laha laa xadda li cadadiha kullu xaziinatin kullu xazaanatin ardan wa tuuran maa bayna alsamaai wal ardi mamluatan kullu xasaanatin ala hada alqadri yaquutatan yaquutan aw dahaban aw fiddatan aw zuruucan wa gayri dalika min almutawawilaati summa quddira faqiran laa yamliku mathalan gayra xubsatayni min duniyaahu fa samica bilmalik washadda xubbahu wa tacdiimahu lahu fi qalbihi fa ahdaa li dalika almalik ixda alxubsatayni mucadiman lahu wa muxiban wal maliku muttasiul karam fala shakka an alxubzata la taqaau minhu bi baal lima huwa fihi min alghina alladi la xadda lahu fa wujuduha indahu wa adamuha ala xaddin sawa summa inna almalik littisaai karamihi alima faqra alfaqir wa gaayata juhdihi wa alima sidqa xubbihi wa taadimihi fi qalbihi wa annahu ahda lahu alxubzata illa li ma ahda lahu alxubzata illa li ajli dalik walaw qadara ala akthari min dalika la ahdaahu lahu falmalaku la yaqdiru falmalaku yadharu alfarax walsurur li dalika alfaqir wa bi hadiyatihi li ajli taadimihi wa sidqi xubbihi la li ajli intifaacihi bilxubzati wa yusibu ala tilka alxubzati bima la yaqdiru qadrahu min alata li ajli sidqi almahabati والتعظيم لا لأجل النفع بالخبزة على هذا على هذا التقدير wa daraba almasal qadra ihdaai sawaabi lahu sallallahu alayhi wa sallam wa amma ginaahu faqad taqaddama zikruhu fi darbi almasal bi azamati albahri almadkur awalan wa imdaadu bi nuqtati alqalam wa amma ihdaauhu sallallahu alayhi wa sallam faqad dukira المثل بإهداء الخبز المذكور والسلام فإذا فهمت هذا ما قدمنا وتحققت فهمك في ذهنك علمت yaqinan anna qadrahu sallallahu alayhi wa sallam maa wasafa qadruhu wa miqdaaruhu uh, uh, uh, wa inna wa inna wa inna su'aal al-musalli alayhi sallallahu alayhi min rabbihi an yusalli ala nabiyi xakk qadrihi wa miqdaarihi azim waaqi'un mawqi'uhu ba tey Mawlaana Alxaaj Omar radiyallahu anhu ci xolam bu yaatu bi ak leeralam gi mu ngi nekkoon ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane ne kenn mënta ñàkk am leer gi ndax indi woon na ci dars bi paase rek waa ji nga xam ne dafa xiifaloon lool ay muus xëy xëy jox leen benn mburu ni ñuy xëccoo ci moom nee na wujut bi yëpp noonu la ñuy xëccoo ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax kenn mënu la mucc ci war a mën a jariñoo leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa nag mu bëgg tëj Euh, leeral googu rek salaatu ala nabi ndax xam naa ne du jeex waaye pour wan la rek ngëneelu yonent bi ba boo fi jógee daal di nga xam ne julli ji ngay julli ci moom bëgg ko jariñ taxul waaye yow yaa ciy jariñoo euh, mu wax ne gannaaw bi mu waxee ne yàlla subhaanahu wa lépp lu mu bind mu ngi ko amale ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ci leeru yonenti bi lay ravitaaye adduna bi yépp di wax na jibril kon moo ko ëpp xam-xam néew xam-xam la ndax jibril ci moom ci boppam ci xam-xamu yonent bi la bokk mu ne pour dëggal la loolu rek euh, gis nga téere yi dañu wax ne yàlla bëggee génne teranga yi ci biir suuf ak xéewal yi yàlla dafa mel ni li mu bindoon daf ko dëxañoon ci suuf si bàyyi ko fa waaye bi yàlla bëggee mu génne ba ci pétrole bi ñuy amee or bi ñuy amee gaz bi ñuy amee jama bi ñuy amee yëpp ndekete ci leeru yonent bi la génne gannaaw bi ñu ko bindee ci leeru yonent bi mu ne bi yàlla bëggee génne xéewal yi nekk ci suuf ak secret yi ak mineur yim ci denc ak li fi nekk ci ay xeetu ndox ak i puits ay taw maanaam ay ndox ay teen ak ay rivière ak i garab ak i meññante bi yàlla nammee loolu donte mu ngi woon ci suuf mu meññ yàlla dafa yabal soixante dix mille malaayika euh, ñooñu mu yabalaat yeneen soixante dix mille malaayika yabalaat yeneen soixante dix mille malaayika muy trois fois trois fois soixante dix mille nee na kuréel gu njëkk gi muy soixante dix mille yu njëkk ya yàlla yebal leen ñu wàcc ci suuf pour di tudd turu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais nag tur wiñ koy oowee ci xayb malaaka yooyu di wër suuf si di ko tudd beneen deuxième régiment soixante dix mille bi mu ne leen dem leen yéeni ngeen ngeeni tudde yéen daraja yonent bi sallallahu alayhi mooy grandeur ak jege gi mu jege boroomam muy qurbuhu nga xam ne kon nit turam ak darajaam du mën a tàggoo koo dégg ñu ne son excellence ba pare soog a tudd nanga turam rek darajaam lañ jiital ci turam deuxième régime boobu ñoom it ñuy wër suuf si di tudd loolu beneen troisième régime bi ñu digal leen ñoom it ñuy dem di tudd ji barke yi nga xam ne ak leer yi nga xam ne yàlla Euh, def na ko mooy lumière bi nga xam ne yàlla def na ko ci euh, yonent bi yéen it leen ko bàkk di ko kañ yooyu nag moo àndandoo malaaka yële di wax turam ñii di wax darajaam ñii di tudd leeram ci waxin mu mel ni daal suuf ci boppam dafa jaayu dafa commencé jaayu am yëg-yëg gu mu yëg fa takawanatil kainaatu bi barakati yi ci lañ commencé nag yooyu commencé di génne ba loolu moo jur maanaam ci barke yonent bi ak barke turam ak darajaam jooju moo jur mu mel ni àdduna bi dafa commencé jaayu wala suuf si commencé génne ay xéewalam ni nga xamee ne waykat buy woy koo bëgg da ngay jekki-jekki rek commencé génn xaalis bi nga dencoon di ko jox nee na loolu moo jur kon xéewal yi ñu am bi ñu ko tuddee nag alal ardi fastaqarrat ci ci la suuf dal maanaam lii mooy mu jégi eh, li ci génne mooy suuf ki suuf si dafa mujje stable baj-baj gi mu doon def ndekete kon bu suuf ma nee dal ba nga tabax ci sa kër dëkk ci nee na barke boobu moo ko def wa ala samawaati fastaqallat asamaan itam bu ma nee taxaw euh, immobile nga xam ne wàccatul yënguwul deful dara xotteekuwul ndekete barke boobu la wa ala mafasili zaati zaati ibni adam fa laanat de même itam nit bind bind giñ ko bind ba ay sidditam mën a taxaw nooy ndax ku ne xam na ne yax ak siddit am na bu gën a dëgër hmm? ni yax dëgëree bu ko siddit dëgëre woon dina metti trop waaye ndekete leer googu moo dugg ci siddit yi nooyal ko ba mu nooy népp sa sa yaram mën a nooy nga mën a toog mën a jug taxaw sinon du woon loolu nit day mel ni bant rek mu ne wa ala mawaadii aynayhi fa futixat bil anwaar de même que loolu moo jur lumière boobu malaaka yi doon tuddee turu yonent bi diggante ñaari bëtu nit ki mu nooy ba euh, bët mën a ubbeeku euh, tëj ndax paxu paxu bët yi fi mu nekk euh, bu fekkoon dañ ko remplir ak ay yax defe bët du mën a am mobilité bi mu am nii nga gis ne kon yooyu yëpp de même que itam secret yi ci la ko yàlla tuur ci mbindeef yi lii mu ngi amee ci barke tudd gi nga xam ne ni trois régiments yooyu tudd nañ ko turu yonent bi nee na d'ailleurs moom la borom dala ilul xayraat di confirmer ci salaatoom ne maa ngi yàlla maa ngi lay tudd ci su turu soppe bi nga xam ne ni bañ ko tuddee ci guddi ci la guddi gi lëndëm guddi gi dafa tiit ba lëndëm ndegete kon sirru bi lëndëmal guddi ba nga mën ci noppalu mooy sirru turu yonent bi sallallahu alayhi wa ci bëccëg gi ci la leere kon ndeke sirru bi leeral bëccëg mooy yonent bi doy na ci seede jant moo leeral bëccëg te jant bi parti la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam de maa ngi lay tudd ci turu ki nga xam ne asamaani juróom-ñaar biñ ko tuddee fa saqalat ci la amee tabaarakallahu indépendance am ba mën a taqalikoog suuf te muy big bang bi ñuy tudd wa alal ardi maa ngi lay tudd ci turu borom euh, barke bi nga xam ne biñ ko tuddee ci suuf rek te la suuf stable dal ba nga xam ne tremblement de terre yëpp wàññeeku na moo tax ñuy gis ne balaa àdduna tukki tremblement de terre day dellu siwaat ndax fekk na barke boobu peut-être suuf daf ko épuisé ba nga xam ne jeex na wa alal jibaal yi ak barke barkem ci la montagne yi farasat ci la dal nga xam ne ñoom ñoo tee suuf si ba du yëngu wa alal bixaar yi ci géej yi fa jar ci la dawe wa alal ak bëtu ndox yi muy source d'eau yi fa nabaat ci la ballee ba teen yëpp mën a euh, ñu mën koo jariñoo wa ala saxaabi suru boobu nga xam ne itam ci niir yi fa am tarat ci la tawe nga gis ne kon yonent bi daal sallallahu alayhi wa lépp loo xam ne mooy barke suuf rek yàlla mu ko taxawul ci euh, turam ak barkeem ba tey Seydi euh, Seydi Abdul Aziz Dabakh Chérif di wax ne Euh, gis nga lii boo ko xasee xam rek da xam ne kon tur yont yàlla muhammad nekkati lépp luy barke ci suuf rek maanaam loolu moom moo ko fi indi ci barkeem la mbooleem existence bi amee loolu rek la ci jublu woon pour seede ko mu ne wallahu aalam kon ahmad ibnu mubarak boobu ba tey moo doon wax depuis ñaari dars ngi nii euh, di nettali waxu sëriñam te loolu dara juru ko lu dul moom bi muy tarbiya moom Chérif Abdoul Aziz Dabba day wax ne nit mënta yegg ci yàlla te xamul kan mooy yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk xamagoo yonent bi nag mënoo dem ci yàlla ndax mooy mooy buntu yàlla bu mag bi. looloo taxoon temps bi yëpp mu defoon ko ci pour xamal la kan mooy yonent bi waaw nga gisee ci nag kii nga xam ne ci turam la yii yëpp amee yow boo dukki dëkkee ci turam di ko zikr foo toll te mooy di julli ci moom ndax koy julli ci moom rek yaa ngi tuddaale turam. est ce que yow do yaakaaruñ ci yow évolution kon di nga yokk bu baax yàlla ñu ci yàlla boole de même itam ki ñuy wax ahmad ibnu abdullahi al xaws nitu yàlla bu mag la moom dafa masoon a wax lii benn taalibeem dafa ne taalibeem yow doom xanaa xamoo ne bu dul woon leeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa benn secret du feeñ ci secret yàlla yi benn secret du du du ball benn ndox wala secret du ball ci mboolem secret yi nga xam ne ball na ci àdduna bi wala benn source d'eau du ball te dara du daw ci àdduna bi ci ay xeetu rivière lu dul ci leeram sallallahu alayhi wa góor gi di wax ne taaliba bi yow doom xanaa xamoo ne leeru yonent bi weeru mars muy mars bi ñu nekk nii chaque mois de mars yàlla dina génne weer leeru yonent bi mu noyyi ñaari yoon ci kaw ñetti yoon ci kaw suuf chaque mois de mars euh, yàlla dina yónni leeru yonent bi mu noyyi ñetti yoon ci euh, weer bi nee na noyyi googu mooy dem ci jaww ji jur ci ñoom ñu commencé fleur gis nga garab yépp commencé nañ jël fleur commencé produire mu ne loolu dara juru ko lu dul leeru yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne mooy noyyi ci weeru mars garab yi dul sax ci jamonoy nawet maanaam garab yi nga xam ne nawet du leen saxal yëpp da ngay yëg ne màng yëpp commencé nañ tóortóor euh, di jël ay fruits yeneen yi noonu mu commencé ñor loolu mooy dem ba topp nawet bi nawet bu ñëwee itam ci leeru yonent bi sallallahu alayhi ci la loolu di ñore xam naa kuy bëgg a euh, weddi di nga ne waaw ci bi est-ce que moo bind yooyu déedéet yeneen ci bind ko yàlla ci boppam moo ko bind mais yàlla lu muy def xanaa nit dina def dara sax ne sama matière premier mooy nangam yonent bi mooy matière première wu lépp lu yàllay bind kon du caaginu moom moo ko bind moom yonent bi mais yàlla moo ko bind ci leeram euh, kon nekk bu dul woon leeru yonent bi dara du meññ yow sama doom nekk xanaa xamoo ki gën a néew ngëm ci ñiy gëm yàlla mooy ki jàppane euh, maanaam ngëmam ci boppam ci pexem boppam la ko gëmee te am na ñu mel noonu am na ñu ne buñ ne nee ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñoom daal ñoo seetlu ci seen xel ba mu doy leen ba ñu xam ne yàlla yonent bi la yónni diine mooy dëgg ñu gëm ko ñoom ñoom dañ foog ne daal seen gëm ci seen volonté personnel la nekk te nee na loolu njuumte gu rëy rëy la xanaa xamoo ne ngëm xajul ci yaramu nit al imaan damay wax ne ngëm yàlla cinq minutes rek wala gëm yàlla dix minutes wala gëm yàlla une heure de temps xajul nit attanalu ko boppam julli boo jullee suba ba tisbaar jot nga julliwaat da ngay jàpp ne jàmbaar nga waaw maa ngi nii julli suba julli naa tisbaar te xamoo ne diggante fi nga fi jullee timis euh, suba avant tisbaar euh, maanaam euh, maanaam téeméeri mbir yu mën a tax nga weddi fi yàlla jaar na fi benn bu ne yàlla di la taxaw rek di la résisteloo di la taxaw di la résisteloo ba tisbaar jot kon ki ki ne jaamu na yàlla soixante cinq ans ngëmu soixante cinq ans gi fan la ko jële ñu wax ne dafa diis a diis ba benn ngëm yàlla une minute moom moo gën a diis nga yenu bâtiment ñu ne looloo tax moo tax Muhammad ibn Abdullah al-Xawsu di wax ne doo euh, taalibe bi xanaa xamoo ne budul woon leer gi yàlla di di ñu ravitaaye bu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi kenn du attan sa ngëm vingt quatre heures de temps rek waxatuma la ay at te yow yaa ngi toog rek at mu jot nga ne koor gi fekk na ma fi at mu jot nga ne koor gi fekk na ma fi dem naa màkk man kay dem naa màkk fukki yoon dem naa lii nga foog ne lool se gratuit fekk na yont yàlla Muhammad moo la teel sa ngëm mais yàlla ku mu teelulul ngëm deux heures de temps sax doo ko mën a gëm ndax diisaay bi mu ne ko papa luy loolu mu ne ko xanaa xamoo ngëm diis na diis goo xam ne te neex na gëm diis na diis goo xam ne nii mu ne ko nit ki bu ko yenoo muy jëmm ji jëmm kese kese muy ban bi du ko àttan inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibaali waa lu ñu yenoon montagne yi attanuñu ko ñu yen ko suuf attanuñu ko te yow benn benn rek ci suuf kon kay boo ko mënee yenu cinquante ans war ngaa xam ne dañ ko téel yàlla nag dafay jël leeru yonent bi sallallahu alayhi wa tungu euh, maanaam téeñe ko taalibe bi bu ko defee mu man ko yenul ngëmam waaye bu dul woon loolu day mel ni nit ku yenu lu diis bu koy sànni du ko tey waaw kon ñun ci phase bi est-ce que mën nañoo fay yonent bi nga gis ne kon ndekete bu dul woon mbaaxu yonte yàlla Muhammad ak leeram nee na itam différence du am ci waa àjjana ak waa safara gis nga waa safara est-ce que dugg gi ñu dugg safara ci boppam du xéewal ci waa àjjana axa ah, kay xéewal la parce que ñaari nit bu ñu leen digalee kenn ki def ki ci des deful ki ci def euh, ki def buñ ko fayul dara fay euh, dumaw ñu itam ki deful mérite du am bu ñu fayee itam ki def te dumaw ñu ki deful mérite du am kon ndekete yow jullit bi jàppal ne ku ñu lakk safara rek sa mérite la yow ndax yow yaa jëfoon te comme luñ leen gën a duma rek yow nga gën a am mérite de même que itam ñi dem àjjana yëpp bu ñëpp tolloo woon daraja am ñu gedd seen cër li tax nag ñoom mënuñoo tolloo daraja mooy yonent bi ngëneel gi mu ba gën a bari ci ñoom lu ñu gën a bari lu ñuy julli ci yonent bi rek seeni ngëneel dagay day gën a feeñ moo tax yàlla ne hum darajatun inda allah ay daraja yu wuute lañ kon ndekete diversité bi nekk ci du dugg àjjana ak dugga safara ndekete du dara lu dul leeru yonent bi sallallahu alayhi wa noo gën a séddoo gën a sori safara noo gën a ñàkk séddoo gën a jege àjjana noo gën a séddoo ci yonent bi gën a am ay daraja keroog ci àjjana kon ci ngay gis ne kon loo gën a baril salaatul fatiha gën koo soreel ki kadul baril kon nekkete diversité bi am ci diggante àjjana ak safara ci ñi koy peuple yëpp moom nee na mu ngi nekk nekkete ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci darajam looloo tax yàlla bind leeram moom yonent bi sallallahu alayhi ci maanaam njëkk-njëkk laata yàllay amal dara ci moom nag la def diversité bi nekk ci mbindeef yi ba nga xam ne kuy nangu mayuk yàlla leer googu mooy bari ci yow ku koy bañ itam leer ga moo néew ci yow ci la ñuy xame ni képp koo xam ne ni am nga cër ci ragal yàlla ak cër boo mën a am leeru yonent bi la rek képp ku xam yàlla ak noo daraja joo ca mën a àgg leeru yonent bi la képp ku ragal yàlla ak foo ca mën a toll leeru yonent bi la képp koo xam ne naan nga ci leeru yonent bi ak melo woo ci mën a naan ak xeet woo ci mën a naan na ngay ja nañ jàpp ne yow ci melokaan woowu ngay feeñee moom ngay génnee de même ku ci ñàkk wenn melo ak wenn xeet loolu ngay ñàkk itam ci la ñuy xam ne kon ndekete am am jarula revendiquer ñàkk itam jarta revendiquer selon rek li la yàlla sédd ci leeru yonent bi ci ngay gënee wala nga yéese ci de même que itam sayidina radiallahu anhu euh, Abdul Aziz loolu la wax ne ndekete diversité bi nekk ci mbindeef yëpp ak euh, secret yi ci am yëpp ndekete mu ngi nekk ci diversité bi nekk ci secret yonent bi de même que kii sax toog naa big nangam feeñu ma toog naa gént naa nangam nekkete yooyu yëpp mu ngi nekk ci diversité bi nekk ci li nga naan rek ci leeru yonent bi loolu la situation bi jeexal Cheikh Hadj Omar Fouti nag di tëj chapitre bi ci lii wala boog euh, maanaam euh, section bi ci lii muy nag yow mi julli ci yonent bi xanaa kon léegi leer la na leer na ne yonent yàlla Muhammad du yow yaa koy jariñ waaye yow yaay jariñoo ci moom ni nga melakus néew ba di ko naw moom moo la ko defal waaye du yow yaa jàmbaar ba góor góorlu ba àgg foofu nee na li koy confirmer ñu ngi dellu siwaat ci suñu sëriñ mooy li suñu sëriñ wax cheikh na ahmad tiyaani radiallahu anhu nga xam ne ñun moom mooy suñu tabaarakallahu wéruwaay cheikh omar ne doylu gi yonent bi doylu wëlis bépp mbindeef moo xam euh, ñoom ñëpp la wala kenn kenn ci ñoom loolu moom poussière amu ci ñëpp xam nañ ko te duma ko gën a leeral sax ndax nee na Cheikh na Ahmad Tiyaani wax na ci Jawahirul Maani wax joo xam ne ku ko miin miin nga wax jooju nee na yonent bi doylu gi mu doylu mboole mboolem mbindeef yi ba soxlaalu leen dara kenn par kenn wala mbooloo par mbooloo ba tax yow ngay julli ci moom ne da nga koy may yool bi tax nga foog ne danga koy jariñ nee na loolu ku ko foog rek riir nga ndax yonent bi bépp xéewalu yàlla ak mayam moom la ko yàlla matale ci moom nee na képp ku bëgg a def loolu yaa ngi yaa ngi mel ne yaa ngi mel ni da nga bëgg a weddi may gi yàlla may yonent bi ak mat gi mu ko mataleel ci ësal avant daray xew kon yonent bi laata yàlla bind dara moom mat na d'ailleurs ci matam la ñu binde amul lu muy sàkku ci kenn amul lu muy wut ci kenn amul lu mu bëgg a dolleekoo ci kenn amul lu ko kenn mën a jariñ ndax yàlla moo ko waxal boppam te waxu yàlla du dañ ne ko wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda yàlla dina la jox ba nga doyal sëkk sëkk ba kontaan mu ne may googu nag ku ne xam ne ne euh, jugewul lu dul ci boromam subhanahu wa te loolu lu yomba yàlla la euh, yàlla lu muy wax lu ne def na ko pare ndax du digge lu mu mënul kon mm, yàlla nag li mu wax ne dinaa la jox ba nga kontaan lay kontaan loo yonent bi sallallahu alayhi xel mënu koo takk moo tax Cheikh na Tiyaani radiyallahu anhu wax ne yàlla kon dana ko jox ci ay xéewalam ak ay teraangam pour mu kontaan lu tolloog moom yàlla ni mu am ndax damay wax ne milliardaire bu janoog yow nan laan dinaa la may di la may di la may ba man ma xam ne may naa la xam nga ki doon multimilliardaire ci àdduna bi ba ñëpp xame ko ko ak ki nga xam ne ni cinq cent vingt cinq la amee xam nga ki ame cinq cent vingt cinq mën na laa may ba xam ne may la na xam nga lan la koy xamee bu la joxee quatre cent cinquante moom dana xam ne may na la mais yow man na laa bañ a jariñ waaye milliardaire bi nga xam moo ëppale alal bu demee ba moom di la jox ba xam ne jox na la mooy daanaka trésor jeex na du loolu la wax yonent bi ne ko man mi am dinaa la may ba nga xam ne may naa la ba nga kontaan euh, kon nga gis ne loolu kenn xamul nu mu toll ndax grandeuru yàlla ak ay mayam kenn xamul nu mu toll kon fama zannuka bi atain yariju min martabatin la gaayata laha Cheikh na Tiyaani nee na nan nga mën a imaginer may goo xam ne mu ngi juge ci trésor boo xam ne kenn xamul fu mu tàmbalee kenn xamul fu mu yem nan nga ko mën a imaginer nan nga imaginer ngëneelu koo xam ne moom ci boppam moo ko waxal boppam ne ko wa kaana fadlullahi alayka azima dëgg dëgg dëgg gën euh, may naa la borom boobu nga xam ne amul fu mu dale amul fu mu yem bu demee ba joxar bi nit naan kaan dëgg dëgg may naa la samay may bari na ci yow nga xam ne kon teraanga ji kenn xamul lu mu toll te li gën a néew kon ci maanaam doylu gu yonent bi doylu wali suñu julli nee na waaw lii rek doyul ci koo xam ne ni biñ ko mayee ba pare place bu ñu war a mayewaat amaatu fa yow nga ne da ngay julli ci moom pour jariñ ko yow yow foo nekkoon yow foo nekkoon man damay ragal est-ce que bokkoo ci may gi yow ci may gi nga bokk te yëgoo ko kon boo foogee ne mën ngaa jariñ yonent bi kooku kenn xamul mu toll nga ne Cheikh na tiyaan yi mais loolu kenn manu ko comprendre Cheikh ne kon ma indil la rek zahir bi nga comprendre ko xam ne yonent bi xaarul yow sa julli pour jariñoo ko nee na doy na ci rek keroog ba ko yàlla yónnee mu ne mu ne yàlla moo ma yónni képp Aboubacar Siddiq wala Seydina Xadi Sittuna Xadija moo ko jëkk a gëm ba àddunay tukki nag képp ku fiy jullit jaamu yàlla goo jaamu yàlla boo ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loo fi jaamooti yàlla laa wax ba àddunay tukki ku dib jullit cinquante cinquante pour cent yi yonent bee ko moom ah maanaam nit ku nekk yow sax jaamu yàlla yonent bi moom moo la ci ëppale yow waaw te moom ñaata milliards yi nit ñoo ko fi gëm ba ko yàlla yónnee ba àddunay tukki hmm? waaw kon kay kooku ku ko dajale xam nga ne adduna bi li fiy dund ci huit milliards d'individus bu doon kenn ku nekk moitié salaire am yow yaa ko moom xam nga nag ku la fekkaat ngay wër ci buntu kër yi naan ngir yàlla xam nga jàpp ne dañoo juum waaye du mu waaji yonent bi képp ku yàlla bind nga dib jullit bokk ci xeetam ba adduna addunay tukki lépp loo xam ne ni jaamu nga ko yàlla moom yonent bi moo la ciy ëppale yow loolu werante amu ci waaw kon kooku bu woon rek li ko yàlla jox kese mais pour am boobu bu ko dajalee est-ce que soxlaati na yow pour nga koy sarax sa julli déedéet kon ndekete yow booy julli ci yonent bi cheikh nee na li ma ci bëgg a jàngale mooy yow ci sa bopp daal ngay julli waaye du ci yonent bi ndax yow yaa koy jariñoo loolu benn la muy bu zahir bi mu ne wa hada asfaru maratibi ginaahu te loolu nag moo ci gën a tuuti sax ci li yonent bi am waaye ca gannaaw loolu am na fa yeneeni xeetu may ak i teraanga ak euh, xéewal yoo xam ne nii ëlëm nam xel xel mënu fa àgg rawatina di ko xam wala yu mel noon mu ne nag fa ida arafta hada boo xamee lii di nga xam ne kon yonent bi amul soxla ci suñuy julli ñun ñu naan del julli ci yonent bi téeméeri yoon nga naan waaw dama dama koy def naan hadi hadiyatun ilayka ya rasulallah pour wane ne yaa ngi bëgg julli ci moom pour am ci moom ay teraanga déedéet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, fii ginan an dalika euh, nekk na ci maanaam ak doylu walis euh, loolu ngay julli ci moom nee na misaal bi mu ciy joxe cheikh naturellement ñaari misaal la ci daan joxe mooy géej googu géej googu nga xam ne nii mille kilo mille kilomètres la ci quatre points yëpp quatre points cardinaux yëpp mille kilomètres la géej googu fees ko dell ak ndox Euh, nit ku ko moom tabaarakallaahu nga jëlaat benn kaasu ndox di ko may foog ne da yokk géej gi xam nga kooku ay ree la koy def ah ko buur boobu nga xam ne itam moom moom penkook soowu yow amoo lu dul ñaari dogu mburu nga dégg mbaaxu buur bi ak ni mu tabee nga jël benn mburu mi ne da ko sopp lool ñëw di ko may euh, booleeg di jooy ne ko ni ma la bëggee buur bi moom mu xamee ne boo amoon lu ëpp benn mburu moom di ko jox may laaj mburu moomu nga joxe da ngay yalwaan wala da ngay maye da ngay yalwaan nee na képp kuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi noonu ngay mel lépp loo def ci yonent bi ci julli yalwaan la gën a jege waaye doonul may yonent bi sallallahu alayhi loolu moom la Cheikh Tidiane wax ne mooy misaalu géej googu nga xam ne ni euh, cent mille cent mille euh, maanaam doxu doxu cent mille ans la Euh, ci longeur ak largeur ak euh, maanaam maanaam hauteur euh, kooku nag géej googu képp ku ñëw di ci sotiwaat benn kaas foog ne yow yaa ngi bëgg a géej gi wala yaa ngi koy doyal yokk yaa ngi nax sa bopp kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam géej la goo xam ne yàlla remplir na ko laata muy bind aadama ba mu fees del del del mu digal ñu ñu julli ci moom kon jullik barkeelu rek la muy yalwaan waaye doonul julli mën koo jariñ dara ndax moom tabaarakallahu yàlla kawel na mbiram lool sutal na darajaam ci mboolem suti euh, martaba yi euh, tànn na ko tànn goo xam ne nii euh, kenn du mel ni moom te defu ko lu dul nangu jëfu képp koo xam ne nii yaa ngi jaar ci barkeem ak di ñaan ci darajaam kon képp ku bëgg a jege yàlla Cheikh na Tijaan nee na wala ngay jublu ci yàlla jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa da ngay yegg waaye képp ku bëgg a dem ci yàlla wan gannaaw wala iyaazu billah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne di nga yegg dinañ la dàq ba pare duma la mere la rëbb la sorel la xadara yàlla ba pare di nga perte ci àdduna ak alaxira ndax amul benn échelle bu gën a gaaw wala bu mën a yeggale jaam bi ci yàlla lu dul julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax loolu ci lañu yàllay xamalaale daraja yonent bi ak mbaaxam ak cër bi mu am ci moom ci la ñuy xamalaale itam ne képp ku jokk ci moom ci mboolem façon jokkuwin yépp sàkku ci moom li nga bëgg yàlla dana la may li nga bëgg dinga am jariñ te doo sonn doo sonle waaye képp koo xam ne yaa ngi fook ne yow yaa war a mën a jariñ yonent bi sallallahu alayhi ci julli gi ngay julli ci moom atte bi ñu waxoon rek mooy géej googu noonu waa ji bëggoon a yokk nanga xalaat loolu xam ne yonent bi soxlawul loolu ñu loolu nga nekk nee beneen misaal bu ñaareel bi mooy buur boobu buur boo xam ne nii dafa bari lool tabaarakallahu ak nguur nguuram di dafa yaatu yàlla jox ko lépp loo xam ne teraanga junit nit di war a am la ci nguur mu amee ko am ay tool am ay kër am ay palais yu dul jeex tabaarakallahu yàlla may ko ci ay trésor loo xam ne daanaka dëkku lëmm fees na ko mu def mu remplir argent bo fees del aki wurus ak pierre précieuse ak ay jama or buur boobu daal ci gàttal lu ne am na ko benn waaju ñàkk dégg ko soppal ko bo soppal boppam waaye amul lu ñaari mburu benn mburu mu jëfandikoo ko bi ci des mu àmbale ko ba mu rafet yóbbul ko buur bi euh, jooy ci kanamam cheikh nee na la shakka ku ne xam ne ne sikki sàkk xam amul ci ne annal xubzata la taqaaw minhu bi baalin ndax xam nga ne buur boobu soxla na leneen lu dul mburu moomu xëy na léeg sax man na doon mburu mu wow waaye bi mu xoolee waa ji ak cofeelam ak ni mu jooyee ak ni mu dëggoo mu xam ne bu amoon lu ëpp mburu mi dina ko joxe buur bi wan kone ne bég naa lool maa ngi kontaan bégg naa li nga def lool rëy na ci man euh, te tegal ma fële mburu mi waaye la mu ko préparel ci ay dotation ak may waaye waa ji mënoon naa dund ba dee du am lu tol noonu kon kooku moom mooy maqaamu rek ki nga xam ne nii mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bul foog muk ne yow yaa ngi julli ci moom pour mën koo jariñ jariñ wa amma ginaahu faqad taqaddama zikruhu kon loolu ci ngay xam ne yonent bi daal soxlawul wulis julli wala ñaanu keneen ku mu mën a doon yow kay yaa koy julli ci moom pour jariñoo ko euh, waaye du moom ngay jariñ sallallahu alayhi wa omar nag ne fa ida fahimta jamia ma taqaddamnahu boo comprendre nag yi ma fi wax yëpp wa taxaqaqa fahmu ko nga leeral sa digg ba xam ne ndekete yow yonent bi yow yaa mën a jariñ ci moom waaye du yow yaa kay jariñ léegi nag alim tey xiinan di nga xam ci lu wér li lan ngay xam nee na anna qadrahu baat bi mu waxoon ne xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim ci salaatu fatiha kon di nga ci xamee ne eh, daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa miqdaarahu ak miqdaaram wa inna su'aal al musalli min rabbihi an yusalli ala nabiyihi xaqa qadri wa miqdaari waaqion mawqiahu kon di nga gis ne ndekete kon li tax waa ji di julli ci yonent bi bàyyi fi mboolem multiplication yëpp ne yàlla daal ci gàttal jullil ma ci yonent bi lu tollook darajaam rek ak kemam nee na nga gis ne ndekete kon waa ji juumul ndax bépp multiplication boo utiliser rek multiplication boobu dugg na ci biir darajay yonent bi sallallahu alayhi parce que multiplication booy jël ci mbindeef yi lay tudd te mbindeef yi euh, euh, tabaarakallaahu yàlla mu ngi ko bind ci benn matière première mooy yonent bi sallallahu alayhi kon multiplication boo jël boo ne woon toxu ndox yi toxu ndox yi benn dimension la ci dimension xaq qadri yi boo ne pepp pepp suuf yi dimension la ci xaq qadri yi boo ne euh, limu weer yi ak bés yi dimension la ci xaq qadri yi maanaam loo mën a tudd daal lu dul yàlla dimension la ci xaq qadri yi kon boo ne kon yàlla julil ma ci yonent bi xaq qadri yi lu tollook ni kemam toll la automatiquement yow comprendre nga ne kon ndekete yonent bi daal moom mooy wujud bi alal itlaq bu boobaa kon sa benn peru salaatul fatiha di wax ne di nga dem ajana te àjjana moom ci boppam li muy rëy rëy doon benn dimension ci yonent bi dafa mel ni lenn la ci li la salaatu a may maanaam salaatu faatiha lenn lim la mën a may dem àjjana bokk na ci waaye du loolu rek la mën ndax àjjana ci boppam li muy rëy rëy ci qadri yii la bokk sallallahu alayhi wa lii nag boo ko xasee xam rek di nga gis ne kon benn peru salaatul faatiha au delà de fatih li maawulit au delà de sabaq nasiril xaqi alhadi baat bi baat bi ñuy wax xaq qadrihi rek du doon am na sirru dëgg dëgg dëgg te am na sirru mooy xaq qadrihi parce que moom moo def différence salaatu ala nabi yeneen yi ak salaatul fatih yal na yàlla fayal ñu Mawlana Seydi Cheikh Ahmed Tiyaani radiallahu anhu euh, ci justification yu leer yi fayal ñu itam Mawlana Cheikh Hadj Omar Fouti moom mi nga xam mooy avocat tariqa bi mi wax di fadlihi wa juudihi ñaan yàlla subhanahu